lundi 15 juillet 2019 ñu ñëw ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey jàppal sunu làmb record loto point net fu ci nekk rek maanaam ba nga xëyee daal tey fi nga xëy saw xët lenn la combat bi nga xam ne moo amoon samedi fa nga xam ne moo doon ci arène nationale mu mel ni ki nag jàppal diggante lag de Guiers numéro 2 ak Boy Niang moom yëglikaay bi ni sunu làmb daal nee na ñoom ñaar day dos à dos la ñu def maanaam daal ku ci nekk combat ba nga doon bëreek sa moroom moom jëlewoo ca ndam yëglikaay bi nee na un combat nil combat boo xam ne daal jàppal ne moom nil la mujjee nil na ci côté yépp ba tax na sax yëglikaay bi day jàpp na ne daal polémique ba bëri na waaw ndax nag coow laa nga ne kur ca li nga xam ne nii moo di combat bi nga xam ne moo doon dox ci diggante booy Niang ak kii nga xam ne nii moo di Lac de Guiers numéro 2 Boy Niang moom wala boog Lac de Guiers numéro 2 daa jàpp ne daal kii di Boy Niang moom teg na kaat appi am laal na booy ñang ne ko loolu moom amul teguma fes samay appi tamit laal yow kay bu kaat appi am yow yaa ko def mu mel ni ki daal fi mu nekk nii moom ñoom ñaar ku nekk yaa ngay taqal sa morom moo tax yëglikaay bi ne na jàppal tey jii day moom seen seeba nar naa xat ndax ku ci nekk rek ci ñaari kaay nee nga yow da nga yóbbu fa nga xam ne nii moo di ca seen seeba sa ëpp recours ngir nag lan jàpp ne sa morom dafa def kaat appi coow li mel ni tuleeg màll ci diggante ñaari mbër yi kii di booy Niang moom nee na Lac de Guiers numéro 2 moom moom dafa def kaat appi nee na ko yow moom amoo lenn loo war wax def nga kaat appi te ku ne tàmm na ci yow façon bëri bi nga xam ne nii moom ngay dox di ko bëree ñoom Ama Baldé itam ñëwoon nañu dooleel kii nga xam ne nii moo di booy Niang Eumeu Sène ak Sokh ak kenn desul daal ñépp a ñëw soutenir ko ngir mu am ndam ci combat bi doon dox ci digganteem mag kii nga xam ne nii moo di Lac de Guiers numéro 2 waaye jamono jooju tamit Lac nee na daal moom am na ndam de Lac daal ca Leewtoo TV mu ngi fay xam ne daal man damaa daan ki kii nga xam ne moo di Boy Niang te waa làmb nag xam nañ ne dama koo daan daan naa ko jël bu leeral leeral leeral leel moom daal jàpp na ne fonde ba mu doon wax moom noonu naa ko fonde bi danaa la ko jox la ngay wax de nee na li leer ba leer nag li fi mu jëm daal fenn la nee na combat royal bi war a am le 28 juillet Lac de Guiers na fa la sampum dëndëm diggante Eumeu Sène ak Modou Lo parce que moom daa jàpp ne day roi des arènes daal moom la digg waa Géejawaay te nee na mu yàgg mu guddi da leen koy jox ndax nag nee na moom foofu dong la te lii nga xam ne nii moo di ay bëtam ñu ne ko lak sa diggante ak Ama Baldé mu ne Ama de day dafa dëgër bopp nee na boppam day nga ju toju ko ndax wax nañ ko ba sonn bu mu mooy waxi kilifa waaye moom daal daa jàpp ni daal xët ndigal loolu moo ko tax a jóg wala moom la bëgg a def waaye nee na man moom maa ngi koy xaar Lac de Guiers numéro mooy wax fa nga xam ne ni moo di ca Leewtoo TV waaye ci Leewtoo point net tamit mu mel ni que làmb ja moom jàppal ñi nga xam ne nii day wala ki nga xam ne nii mooy di Alioune Sarr am na koo xam ne day daa yëkkati kàddu gu tegg newul jëmale ko ci kawam ak comité ba mu jiite waaye day ca jamono yooyu daa mel ni moom moo ma def day jàpp def nañ ko ko mu mel ni que daal làmb moom kere safoon na sàpp xeex tamit yëglikaay bi di Leewtoo point net mu ngi ñuy xam xamal ne day amoon na ginnaaw dëkkante ci diggante Bébé ak qualifié numéro 2 qualifié numéro 2 itam dëkk na fa soq dal di ko sëkkamtal rëg-rëg itam ñëwoon na ca làmba ja di jàppale booy ñang ba tey loolu ñu ngi ko jàngate foofu waaye leneen loo xam tamit gis nañ ko fa maanaam arène ba daal feesoon na dell côté musique bi moom foo ko takk weesu na ko mu mel ni ki daal moom kera moom ñaari mbër yi kenn bàyyiwul dara ay nit ñoo xam ne sax dañoo kagulewu kenn xàmmewu leen gis nañ leen ca làmb ja mu mel ni ki diggante booy ñang daal dara manqué wu fa waaye ba tey Leewtoo point ñu ngi xamal ne tey ci côté mobilisation moom li leer ba leer booy Niang yóbbul na ko Lac de Guiers numéro ndax boo xoolee arène bi moom presque feesoon na te la ca ëpp moom Boy Niang bu Pikine la ñu toppoon mu mel ni ki kon daal Baye Ndiaye moom daa mel ni lambi samedi jii day neex na ba yegg ca lool di naqar wa daal ca lamb ja mooy fa mu mujje mat ba ca am ngañ jaañ ne daal ñaari mbër yi moom li leer ba leer kenn ku ci ne la la waroon yow da koo deful mais boo defoon la la war lii ñu fiy jiñante yépp fi am ba tey mu ni kii nag kii nga xam ne ni moo di Omes Diagne moom la mu jàpp ci record lay waxe nee na noo combat moo fa am maanaam daal combat bi moom amul combat noonu la ko Omes jàppe waaye kii nga xam ne ni day moo di Cheikh Ndiaye ba tey ci record di entraîneur kii di booy Niang nee na Boy Niang moom dafa juum sax ci biir bëre bi loolu mooy waxi kii nga xam ne ni moo di Cheikh Ndiaye mu mel ni daal kon jàppal ñaari mbër yi nag moom li leer ba leer day ne nañ boo sàggane dana leen laal ci wàllum xaalis de li commencé cinq cent vingt mille bu dee Lac de Guiers 2 xaar nañu xaares na ñu dëgg ko loolu bu dee Boy nag moom na xaar ñu dëgg ko lu toll ci wàllu trois cent vingt mille loolu nag ay nit walla boog waa journal bi ñoo ko jàngat di ko xalaat waaye fi mu nekk nii moom benn loi wàccagul jëm ci ñaari mbër xanaa kay ñu xaar fii ba suba ba xam fu wane di mujjee ki bëtam waaye man nag tey la may wax moom la gaaña daan wax rek waaw buur yàlla nu ngi lay ñaan Sénégal jël coupe bi waa ku mu neex nga wax li ndax nag ñoo finaalu kon nag nañu ñaanal suñu équipe bi gaynde yi la leen waroon def ngeen ko fi mu nekk nii xam nga lu desam final ajuma ñoog Algérie yal nañ ko gagné 2-0 ci lu teel a teel a teel 90 minutes ya jeex ñoon di sunum coupe sunum réew feete ko réew mi jëm kanam loolu daal mooy li am. mbokk waa Leewtoo TV ñu leen nuyu di leen gërëm di leen sant Babacar ngeen àndaloon si revue de l'arène bi ñu ànd ak yéen si jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndeye Coumba Fall di nuyu ñi ñu suivre ci Leewtoo TV yëpp fu ñu mën a nekk si àddina bi rek di leen ziar di leen ballu àq te di leen baal di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci ñoom fu ñu nekk rek nuyu nañ leen bëgg leen. <laughs> Babacar nag jàngat bi moom daañu ñëw si sunu lamb ñëw si record ñëw si Leewtoo TV ñëw su ñëw si Leewtoo point net euh, sunu lamb moom tey mi ngi ñuy xamal ni combat bu doxoon si diggante Boy Niang ak la de Guiers bi daal mun nañ jàpp combat bu nul daal la nul nul daal maanaam neexul si benn côté amoon na spectacle stade bi fees na mais ofinaa daal mooy loolu. waaw la nit ñi doon xaar parce que ginnaaw bu amateurs yi ñëwee tëgg tëggkat yeeg woykat yeeg ñëpp ñëw. ah spectacle bi moom macha allah feesaayu arène bi tamit foo ko takk weesu na ko waaw li desoon nag mooy xaar komba bi muy dernier kii bi yàlla dogal na nag combat bi ñu doon xaar ci côté bëree xeex bu metti jël bu rëy am ci loolu wax dëgg yàlla mën nañ ne gisuñu ko fa ba tax na foog mu mujjee mooy match si nul kenn gañewul donte coow li nag bëri na loolu nag wax dëgg yàlla nekk na li nga xam ne ni amateur yi moom xaaruñu woon ko ci ñaari mbër yi xaaroon nañ ko ni ak lu metti méttee métti moom dinañu leen indil bëri spectacle bu neex ci biir bëri bi indil leen ko ci wàllu xeex indil leen ko ci kenn daan sa morom parce que sport moom loolu moo si war a nekk il faut que daanu am ci wala ñàkk bokk mais nag bu fekkente ne euh, da nga ñëw combat bi parce que man bi man xalaatoon naa ne yàgg naa sax di ko wax combat bi su rombee cinq minutes lu ne mën na ci am parce que li mooy Lac de Guiers numéro am na lu mu lu mu tàmmal nit ñi am na lu mu tàmm bëree nekk na bi nga xam ne nii ci biir bëri lu ko lu lu dalul xelam du ko def yaa ngi dégg te ba pare itam neexula la déstabiliser wala nga koy mën a œuvre di ko def li la neex Boy tamit des fois ci ay bëreem loolu da ciy am yaa ngi dégg da lay da lay bëgg a ci nga jóg ñëw ci koom pour mu mën a wes bëri ak yow lag itam nanguwut loolu moo tax ba ñu demee ba ci benn euh, benn moment kenn dootu ci nekk di asalo sa combat da ngay gérer sa combat ñuy carte ci wàllum avertissement ba fa gis nga fa mu mujjee match ni la mujjee Euh, bu nu paree nag euh, ñu dem nag si Leewtoo TV bu nu paree si combat bi mu jeexee Leewtoo TV dem na fa si guddi gi fekk nañu Lac de Guiers Lac de Guiers am na lu wax moom daal nee na euh, na Boy Niang fair play na xam ni que moom gañe na combat bi na nangu ne daan na ko. waa loolu moom moom moom ay waxam la moom lay engagé ah, parce que tamit ñun li ñu xam daal mooy mat si ni la am ci làmb ja moom nag en tant que mbër bi doon bëree moom daa jàpp ne daan na ci action boo xam ne jàpp na ne jël am na fa ndax arbitre arbitre na xëy na ba mu àttee est-ce que dafa wax ay sixième ñu xamal ko ne jël foofu tax mu soufflé waat combat bi loolu itam defe naa ne mooy li ñu gis te arbitre c'est le maître terrain Lac nag am na droit moom ak ay mbokkam ak ay xaritam wala moom mu safure ne moom daa am ndam Boy Niang it ci beneen côté ba mu ngay réclamer victoire ndax jàpp na ne Lac de Guiers numéro dafa def 4 appui kon ñoom ñaar fi mu nekk nii daal li leer ba leer mooy cnc moo leen mën a àtte ci kaw lan recours yi ñuy dugal ku ci ne bu recours ya génnee ah ñu la àtte nga xam ne yow li nga am ca bés ba loolu moo nekkoon sa cër mais nag moom kere ci la Leewtoo TV wax na lu bare bari wax na ci diggante mag baa booy ne na na koo gis ci dëju magu Balla Gaye numéro 2 ne na ci la ko gëj a gisee te dañu da ko nuyu mu nuyu ko mu dem ku ne na ay contact ak yooyu ne na loolu ndax moom am na écrit am na encadrement wa leeral lu bëri daal ba ci Ama Baldé sax wax na ci moom ci dëgëru boppam li mu jàpp ne dafa dëgër bopp ndax loo xam ne ay kilifaa ko wax nga bëgg ko tee bi moom daa jàpp ne kon dafa dëgër bopp mais loo ci mën a dégg daal li am ba des daal mooy que ni moom day ko mbafal boo bëggee dégg dëgg amateur yi moom samedi wax dëgg yàlla euh, fi ñu fi combat bi mujj ak ñoom gënalu leen am nañ ci lu leen naqari trop trop trop trop waaw su wàllu CNG boobu sax la ñuy des ndax ñoom tamit am nañu liggéey parce que ñaari mbëri tii di boo ñaar la dëggee ku nekk nee na moo am ndam ku nekk nee na am def nga sa morom def na quatre appui kon daal CNG xam naa seen liggéey côté boobu dina metti trop Babacar ñun de sport ren lañ ci xam match si niil comme l'arbitre joxe wala défaite wala victoire waaye ñaari victoire moom mën tam ci benn combat loolu moom nañ ci bàyyi xel ñoom ñaari ñëpp nag parce que itam nag nit ñi euh, ñu ngi ci dëkk bi di xool xam nañ li xew ci làmb ji lépp bu fekkente ne yow da nga jàpp ne sa morom daa daanu kii jàpp ne moromam dafa daanu moom tamit loolu defe naa man mënul ne benn victoire a am ci a am benn match a am moom gisaguñu la gis la mook estafam loolu nag ñoom du ñu àtte seen bopp ku nekk am nga droit dugal recours CNG may na la yoon woowu nañ leen déglu d'ici quelques jours xëy na CNG moom bu àttee dina wax li xew ci lamb ndax day confirmer match si niil ba wala day jox Boy Niang victoire wala jox Lac de Guiers numéro 2 loolu waaw nañ bàyyi rek yoon ni yàgg daal. xalaatu Boy Niang mii ne moom am na ndam ak kii di papa muy dëggoon moom tamit ne doomu am na nam dafa waroog ak xalaatu Cheikh Niang mi nga xam ni moo nekk si staffu euh, booy ñaa moom daal nee na mërëm dafa juum. waa euh, De Gaulle ak euh, Boy Niang ñu nuyu waa De Gaulle ñoom jàpp nañ ne ndam dañ ko am Cheikh Ndiaye sax fi mu waxee moom dane maanaam Boy Niang fi mu juumee na bi mu amee trois avertissement lak am quatre dafa wër woon a nangul Boy Lac de Guiers di jouer ci zoom ba di ko yóbbu ci quatrième avertissement ngir ñuy tollu avertissement waaw loolu nag xëy na Lac foofu expérience boobu dafa da ko foofu parce boo xoolee jamono ji ñu amee coowul jël boobu naan daan jël am naag jël amul bi ñu leen di indiwaat ñuy bëriwaat boobu Lac mu ngi ci quatre avertissement te boobu temps bi li ko desee jeex bëriwul Boy Niang am trois kon Boy Niang foofu xëy na bu bàyyi woon xelam dëgg wala concentration wala mu bàyyi xel ci avertissement yi kon xalaat naa dina bañ a jëlaat quatrième avertissement bi ndax su koy jël ñuy tolloo te buñ tollooyee mat si nii la fay mën a am yaa ngi dégg boo Lac itam bi mu ñëwee loolu mu jot a am ci moom loolu tamit dafa xaw a wàññi booy Niang parce que dañu jàppoon foofu ar bi mu àttee ñu naan jël jël jël far ñu ne kaay leen bëriwaat loolu da ko xawoon wàññi tuuti ba freiné aliram ba nga xam ne boo ci lal ak profité tamit di ko poussé di ko poussé ba jox ko quatrième avertissement ñu toll ay avertissement mais daal nekk na combat boo xam ne ni daal liñ ci doon xaar encore une fois ñun reporter yi ñi doon seetaan ak fu waay mën nekk moom vraiment du loolu nga mujj gis ci combat bi parce que xaaroon nañ ci xeex bu rëy rëy rëy bëree bu neex a neex a neex Babacar nu jeexalee si Leewtoo point net ni ñuy xamal ni que keroog bu làmb ji jeexee kii di président Alioune Sarr président wu CNG am na ay supporters yu nga xam ne supporters yu Lac de kontaan nañu si euh, si arbitrage wu arbitre boobu noonu muy Wenceslas euh, nee ñu daal ñoom daal lu ñu jàpp maanaam arbitre dafa waroon jox ndam Lac de Guiers bu affaire bi jeexee nag moom Alioune Sarr moom jot na si ñam comme ni nga ko waxee ay ñam am na ay euh, ay supporters Lac de yu xam sax jëm nañ ko fa saaga saaga yu metti ba màng de xaw na jàppante ak ñoom. waaw loolu da duñ ko rafetlu parce que euh, yaakaar naa wax bu ñaaw nit waru ko xalaat di ko wax boo lool boo amee naqar da nga dañuy bëgg nga bu bala ñu xam nit dëgg dëgg nga am lu la metti mën a maîtriser sa bopp mais bala ñuy xam nit dëgg dëgg tamit nga am lu la neex lool mën a maîtriser sa bopp yaa ngi dégg loolu dafa am solo si doomu aadama mais du da ngay mer rek wala ngay bëggoon nangam jotoo ci rek dal di wax wane sa bopp wax wax bu ñaaw wala nga jëf-jëf ju ñaaw après boo giifee da nga koy rëccu wala nga weddi di yedd sa yedd sa bopp te loolu jaru ko boo bëggee itam war nga mën a am métis ci sa bopp ba doo wax luy tax bu ëllëgee nga nga koy rëccu parce que euh, dañuy faral di wax ne saa bu xuloo jotee nga wax lépp ci xuloo bis bu juboo amee nga ruus kon nit ki war nga am ay réserve tout le temps ak ay limite ci li ngay def ak li ngay wax ñoom ay supporters lañu la ñu gis mooy arbitre bi li mu def du yoon war na joxe ndam mais nag loolu warul yegg ba ci wax wax bu ñaaw di ko jëmale ci ay kilifa Alioune Sarr ak lu la waay mën di wax kilifa la njiit la moo jiite mais nag yaakaar naa wàccul ca géew bay arbitré loolu amul ay arbitre lañ fa teg arbitre ya nag ñoom ñooy jël seen ay propre loola ñoom lay engagé engagé wul kenn waa len daal lañ ci wax mooy que ni bés yu mag yooyu ku mel ne xalifa ji waxoon na ko kera avant làmb ji noonu na il faut ñu indi des fois arbitre yu ko attan arbitre yu vigilant arbitre yu nga xam ne dañ mën a gérer combat bi ndax ci biir combat bi man gis naa fu fu mu fu mu attee foo xam ne nii ci song bu njëkk ba foofu ñu ngi ci biir géew bi di bëree dara amul kon foofu xaw ma la moo ko taxat atte foofu yaa ngi dégg loolu lépp nag li koy waral mooy. tout le temps mu dem si ardo bi tamit am na benn instant dafa dagg combat pour la déggee dem ardo. waaw bu dee ardo bi la moom loolu c'est c'est très normal ndax mbër moom saa yu ñuy bëree ba naaj am il faut kenn ki dem ardo laag sax jàpp na ni ñoom ñaar ñëpp a naaj mais arbitre bi moom moom la ko ne yow yaay ardo te waxi lak du mën a valable foofu noonu non parce que arbitre ba ñu fa teg moo leen di àtte mooy maître du terrain mais encore une daal li ñuy wax mooy soppee mbër ak ñiy ànd ak mbër yi nañuy dal. dafa am solo nit da ngay loolu sax dama koy wax pour tour le monde nit dal dafa baax si doomu aadama yaa ngi dégg nañuy dal di demee des fois ak suñu xel moo xam mbégte la moo xam mer la nañ ci dem ak suñu xel di ci dem ak ndànk parce que loolu pour man mooy tax yow li nga soxla nga atteindre ko mais nag wax lu la neex rek ndax contentement wala wax lu la neex ndax ndax mer moom. dafa jara moytu bu baax a baax a baax encore une fois daal mbër yi ñu leen wër loolu la leen mën a dimbalee ndax nit ki bu tolloo fenn fi ay milliers de di ko topp danga yow mi ànd ak moom da war a nekk ko amam xel mais nag chaque jour ñu wax leen ko ñiy gàmmu ak ñiy raas dem ñu mës a bokk ndey Kumba Faal Babacar samedi su fekkee nit ñi ak supporters yi yeeg amateurs yi seen xol neexul dimanche moom dafa mel ni Sénégal moom ñëpp seen xol neex na ndax dem nañu final. waaw loolu am na waaw loolu moom dèjà am na li ñu bokk ñun ñëpp foofa moom du yëfi la dëgg du yëfi euh, Boy Niang yëfi euh, na waaw yëfi réew mi la national la muy suñu équipe loolu tamit vraiment dem bi itam su ma jumul attention amoon na làmb Serigne Ndiaye numéro 2 lañ ne moo ko gagné Coriace Moussa Ndiafat ñu ko ciy félicité mais li nga wax rek équipe nationale lii moom moo ñu boole moom nga sol tey ma sol ko muy suñu équipe nationale di. taala sol ko waaw non moom la sol. kontaan ci di kontaan ci ñi nga xam ne nii ñoom ñoo yore équipe bi muy Aliou Cissé ak staffam mais tamit di defal suñu ministre des sports monsieur Matar Ba mention spéciale parce itam gis nañ que ni bokk na ci ministres yi gën a disponible ci Sénégal. kon defe naa tamit xëy na moo tax yàlla buur bi di ko xëccal tey di ko ndax nit ki ni ngay doxee ci sa xol ak ci sa liggéey rek des fois résultat yi da lay faral di wuyu si tey ah équipe na équipe ma sax équipe bu mag bi mais yëpp boo xoolee dans le ñu ngi wane ay yaa ngi dégg démb sa am defe naa championnat bu ñu gagné suma jumul ci wàllu ci bu karaté te loolu lépp ci sport bi la tey suñu équipe de basket bi mu ngi qualifié coupe du monde suma jumul muy troisième fois xaw ma deuxième yooyu yëpp ay mbir yi nga xam ne nii pour man li koy maye mooy rek li ngay liggéey nga di ci waxtaan ak ñu ngi ko seqal jiital ci euh, xol bu laa biir di wax ak ñëpp daal kon Matar Ba ndam li moom moom lañ ko ci moom lañ koy moom lañ koy sargale di wax que ne rek sa ajuma yàlla nañ yàlla may ndam lu leer suñu digganteeg Algérie ndax it nag toppee nañ ñoom boora dañoo war a waaj kaar bi nag. comme nu kii waxoon sax euh, Lirou Diane. waaw waa kii arrêté la Algérie Sadio maane fexe leen arrêté Algérie sa ajuma incha allahu rabbi Sadio. fexe na a arrêté Algérie nag nangu ko bi ci moom waaw Jamel Belmadi boobu Aliou Cissé fexeel ngeen defante ajjuma ci kàttanu yàlla nga nil ñu ko bi réew ci ci réew mi nu ne muy Sénégal nag mooy woo maaraayu noonu pour ñu jàpp si équipe bi si kàddu yoon leen di tàggoo di leen jox dig daje suba incha ak Aïcha Faye madame Niang balaa boobu nuyu sama yaay mère Sow di nuyu aussi sama doom Mohamed mi nga xam ne moo supporté woon Tunisie de depuis Italie Cheikh Khadija Diallo Zey depuis Mbour maa ngi lay muyu nga ne Mohamed a supporté mu Tunisie ah bu ko neexee de xol de moom ku nekk lay bëgg am na si droit waaye loolu kon Mohamed dañ naan nga muñu rek di nuyu ñu ñu siifir fu ñu mën a ne soppe yi ak gars yi ñuy bëggee ñëpp à travers le monde képp kuy bëggee Leewtoo TV rek bëggee nañ la tari duñ la fàtte ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax mais suñu soppe yi xam nga ñoom Fatma Fall Ndongo Fall ñoom Benzema maam Mourou Gueye Tall bi sañ Mbaye si Abdou ak waa Petersen yi du ma leen fàtte ah maa ngi leen di nuyu bu baax a baax ñoom jib seen ak petit Cheikh Bass depuis Petersen tam maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu ñëpp rek Cissé Ngari ca Brésil ak fan sa club Leewtoo TV bi yëpp bëggee ñëpp ñaanal ñëpp jàmm Sénégal yàlla na gañe Algérie 2-0 ajjuma incha allahu rabbi ba suba incha